institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir ñu gën koo xam ci daaray Koki ñu ngi ko taxawal ci atum 1939 sëriñ Ahmed Sakhir Lo moom moo ko sanc ci ndigalul turandoom di sëriñam di maam Cheikh Mbay bu Louga di daara joo xam ne dañ fiy jàngale alxuraanul karim ba ñu mokkal ko di yar ci yarub lislaam ci xayma bi nga xam ne moom lañ mujjee def ci atum 2022 bi lu toll ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukki ndonge daara ñoo fiy jàngee daara ja mu ngi ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk fi mu nekk nii sax dañoo nekk ci ay recensement yu bees mën naa am chiffres yi changé balaa fin année fin d'année bi. limub ndongo yi fi jàngee takku na lool waaye lépp dañ ko nos organiser ko noo xamante ni njàng mi léppay jaar yoon. dañ leen a séddale ci ay groupe pédagogique groupe pédagogique yoo xamante ni toll na ci 62 groupes groupe bu ci nekk. du weesu téeméer groupe bu nekk nag day am ku ko jiite am ñu nekk ci suufam di ko jàppale. bu ñu xëyee lii seen programme mooy huit heures la ñuy commencé jàng jàng ba midi ñu noppalu ba trois heures ci bëccëg ñu commencé waat jàng demaat ba dix huit heures ñu arrêté. julli timis bu ñu demee ba julli timis ba noppi julli gee noppalu bu ñu jullee gee ba noppi ñu xaw a sori jàng waxtu gannaaw julli gee bu ñu demee ba njël tamit ñu jukk jàng fajar euh, waxtu ak genn wàll avant ñuy julli fajar daaray Koki njàng mi amul fay lépp kilifa gi nga xam ne moo yor daara ji moom moo ko gàddu di sëriñ Maxtaar naaruloo mi nga xam ni jamono bi daara ji ci loxoom la nekk yor dunduk ndongo yi seenu faju ak lépp lu ci aajow daara ji da leen jël en charge gratuitement daara ji moo yor seen dund moo yor seen faju moo yor seen lekk moo yor seenu njàng moo yor seenu nekkin loolu nag ku ko dégg ni ñeenti junni yoo xamante ni dañ leen a yor gratuitement maanaam sa li ngay njëkk laaj mooy ñi li leen yor fu muy jóge daaray Koki charge yi diis na lool waaye ñi nga xam ne ñoo jotoon a jaar ci daara ji ak yeneen i waaye defal yàlla ñoo ciy jàppale sëriñ bi bu baax a baax li ñu soor ci ceeb ëpp na une par jour li ñu sóor ci ceeb añ rek ëpp na une tonne reer bokkagul ndekki bokkagul tey loolu lépp ci poos sëñ bi lay jóge ak ñi ko ciy jàppale daare Koki am na lycée boo xam ne enseignement général la ñuy def maanaam programme bu éducation nationale bu Sénégal moom lañ fiy jàngalee lycée bi nag ñi nga xam ne ñoo jot a mokkal alxuraanul karim ci daara ji ñoo fiy jàngee moo xam primaire la moyen ba ci secondaire at mu jot nag bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën la ay résultats ci réew mi moo xam série L la wala série S limug ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji séddale añ mi day métti lool moo tax ñu naal fi projet bu mag boo xam ni moo jëm ci restaurant bi nga xam ni dana mën a accueillir lu toll ci ñeenti junni ndongo yoo xam ni daañ fi mën a xewlandoo chantier bi bi ñu ko sancee ak léegi 18 mois la sëriñ bi nag idée bi comme li Cheikh Diop waxoon mi ngi ko jëlee ci Covid bi ko jëlee ko jëlee ci Covid bi ci la am idée bi bis bi mu teg xeer bi fii sëriñ bi juróom-ñaari junni képp la yoroon ci poosam daan ku gaaw def ci da nga ko boobaak léegi nag sëñ bi yëglewu ko tudd ko ci ay télé tudd ko ci ay rajo nit moo fi ñëw rek jaar fi gis chantier bi ko am ciment indi ku am fer indi ko am butoo indi ko am leneen indi yàlla def na ñu dénk ko ku ñuy wax alaaj daam loo mu nekk mag ci man ñu bokk ndeeg baay mu yor chantier bi chaque samedi mu jugee ndakaaru ñëw fii di ko toppatoo di xool àdduna fan la toll ci mbirum tabax li gën a mucc ayib loolu la fi indi te ñi xam matériel di tabax ku gis ku gis matériel bi da xam ne lii Ndakaaru sax amu fa. association des anciens du daara de kii muy ñi nga xam ne ñoo jotoon a jaar ci daara ji ñuy waajal bis bi nga xam ne at mu jot dañ koy amal di journée de solidarité di ci dajale ay koppar ak i jumtukaay yoo xam ne dañ koy jàppale daara ji bis boobu nag ñu jàpp ko le 25 décembre 2022. képp koo xam ne ak jullit ngay bi wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah te alxuraan ñor la ñu ngi lay woo ci ndaje mi di ci laaj sa ndimbal. xaalis matla xam-xam wu oto ciment fer lépp lu waaye am ca man ñu ko jox ñu ngi la koy ñaan ngir jëm yàlla. soxla nañ ay yére soxla nañ ay garab yu ñuy fajoo soxla nañ dàll soxla nañ ceeb diwliñ lépp loo xam doomu aadama da koo soxla rek. ñun daare ko soxla parce que ay doomu aadama ñoo fi nekk ay malaaka nekkuñu fi ay jinne nekkuñu fi. ay nit ñoo fi nekk. di war di lekk di war di lekk di war di naan di war def lépp te sëriñ bi amul kenn ku ko jox juróomi dërëm ku ku bàyyam di fay juróomi dërëm amul fii kon lépp lu nit di soxla soxo nañ ko. ba pare di wax ne daara ji daara Sénégal la quatorze nations yëpp ngi fi huit nationalités ñu ngi fi. yéen ñi nga xam ni def lu baax rek moo leen ñor bunte ngi boo xam ne mën ni si ngeen cee liggéeyal yàlla bu baax a baax.